fi ma taxaw baax na wala. gars fi mu taxaw baax na ah. ah? kon gars ñu dem ah mu donta c'est bon Tafa Tafa ñu ngi lay ziar. acca Babacar maa ngi lay fay. Ah, ah. bon maa ngi sant bu baax. jullit ci yonentam di sant su may waajur bu baax di nuyu waa Bawol yëpp nag di am mbégte bu baax di nuyu képp ku teew fi tey tey moom Babacar di nga ma baal mënul ñàkk daanaka li ñuy remercier moo parce que waa ji li ñu waroon wax yëpp daanaka wax nañu ko du dégg tey gis nga li fi teew yëpp ci ci ci ci ci mbooloo ay autorité Bawol yaakaar naa kenn ku ne yebal na ñu ñëw teew depuis le matin nag gars yi ñu ngi fii xam yore organisation bi maa ngi sant waa Bawol yëpp di gërëm waa Medina bu baax a baax a baax di sant aussi monsieur le maire Mbamba Fall bi nga xam ne moo waral lii ak ñoom seex Ba merci di nuyu waa Medina bi yëpp di nuyu waa Bawol di nuyu waa Refane bi nga xam ne fa laa juddoo di nuyu champion yi fi teew yëpp suma frère yi tey gis nga leen tey xamoo benn écrit xamoo école de lutte Bada Dione xamoo école de lutte Cheikh Mbaba xamoo école de lutte euh, écrit Bawol xamoo écrit Tafatine Ngunjaan ñoom ñëpp a def en masse ñëw bàkku wandoo affaire bi jaar yoon kon maa ngi sant suma seen lutteurs yi yëpp du ma tur foofu ñoom ñëpp maa ngi leen di sant leen gërëm di wax na gis naa ni ñu taxawee ci combat bi ñoom ñëpp ñoo ñëw di ma contacter di ma jàppale wax dëgg yàlla tey ba tey jii ñu ngi ñëw accompagner kon mon frère merci beaucoup yal na leen yàlla defal ay ndam ku ci am combat ku ci amul combat yal na nga am combat incha allah di sant aussi suma suma suma yaay bu baax ak suma papa di leen gërëm di leen ñaanal bu baax di sant aussi suma yi yëpp waaw di sant famille bi nag di sant aussi ñi nga xam ne tey ñoo doon teg ki doon woy làmb ji ki doon woy bés bi ak euh, Babou Faye xam nga di sant aussi Bada Dione xam nga waa marché Sandaga aussi maa leen di gërëm di leen sant délégation bi ñu def daaw de ñoo ñoom Mbaye Gambien ak képp ku jóge ci lieu boobu rek maa ngi lay gërëm di la sant di sant monsieur le bu Touba Toul délégation mu ngi nii Ahmed Gueye ak monsieur le demal damal damal Tafa waaw ak monsieur le maire euh, bu Réfane maa ngi koy sant di ko gërëm aussi waaw gis ngeen Ablaye Tine tey mhm. lépp lu mu doon def mhm. daf ko bàyyi ñëw di ko gërëm di gërëm waa xombal yëpp xam nga di gërëm euh, képp ku fi teew. dafa doo déglu waa presse bi aussi maa ngi leen di sant di leen gërëm. parce que woote naa ngeen ñëw woyu si ma aussi maa ngi leen di remercier bu baax a baax baax wax dëgg yàlla. di gërëmaat encore fois waa Medina bi comme ni ko sawaay waxee. entraîneur yi nga xam ne ñoo nekk Medina yëpp du mën a ñàkk ma lim leen tey muy ñoom Ndiak Sarr Ili Soukay ñoom Wilas Baye Bada Soum Mbaye Ndewane suma entraîneur nga xam ne tey fii laa débutant ak moom fii ñuy defee affaire bi tey ak ñoom Baye falu Faye ak ñëpp falu Ngom xam nga ñi nga xam ne ñoo yore xale Bawol yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant suñu grand frère gis ngeen ko tey Salloo ñoom mbay Diouf ñoom ñëpp teew nañu Ngunda Thiaw gis ngeen ko tey li mu def Ngunda daa wàcc ñoom wuli ñoom ñëpp fi teew kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne vraiment vraiment kontaan naa bu baax a baax di sant aussi presse yi nga xam ne fan si këlib tafaatin yëpp moo ko jiite moom Ilimane xam nga lépp lu muy yëkkati da koy yëkkati teg ko ci loxo Siga Dione mu jàllale ko kon maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di sant aussi am Amsatou aussi maa ngi lay gërëm suma jigéen aussi maa ngi lay sant waaw di la gërëm di wax ne kontaan naa ci yow lool lool lool waaw bu loolu weesoo nag xam nga comme ni ma koy waxee ñu ci waajtaay bés te bés bu nekk dafa am lu maay comme ni ko soose maa ne waxee xëj na nit ku ne da koy nangul tolluwaayam. Mm-hmm. moom soose. Mm-hmm. waaw ñu ngi koy gërëm aussi di ko sant aussi ci tolluwaayam ak fi mu waxee. soose waaw. ñun nag ay jàmbaar la ñoo xam ne nii dañuy nekk ci waar wi saa su nekk saa boo ñëwee dañuy fekk ci waar wi muy neex ñu ngi ci muy naqari ñu ngi ci amuñu nu ñuy tiit amuñu lu ñuy ragal maa ngi maa ngi remercier Thioune famille Thioune papa Thioune Elas Thioune Masek Thioune nga xam ne tey bu ma jógee bu ma jógee quatre bu ma jógee quatre heures du matin di entraîné bon ñoo may accompagner ñoom laay àndal kon ñooñu mënuma leen bañ a sant yaa ngi dégg voilà kon mu noon noonu. noonu noonu la demee ah. Tapha léegi ñu dem si combat bi ku ne xam na ne nee nga li ngeen waroon waxante waxoon ngeen ko ah mais yaakaar naa même bu ngeen ko waxantee tamit mais am na lu des parce que man tey mu doonte seetlu bi ma def ci Tapha Tine mooy dama gis benn Tapha Tine boo xam ne dafa mel ni maasam da koo wàññi ça veut dire que mu mel ni Tapha daa bëgg dimanche am souplesse di déplacé wu mbaadu la fi amoon. moom nga ñu nar a moom nga ñu nar indilaat ca Elton ja wala yaag Bombardier maanaam koo xam ne doo ko jàpp bu la bëggee dóor dóor la te doo ko yóbbu fi nga ko bëgg a yóbbu parce que dama gis tafaatin boo xam daa mel ni jour football quoi. lu xew. waaw mais sant yàlla rek xam nga ñun dañuy liggéey nekk ay ay ay professionnel maa ngi nuyu Eric aussi mi nga xam ne moo waral bés bi tey. Eric ak Lille waaw ren booy xool tey li ma dagal ci ay billets avion rek mot na dix bu ma juumul kon kooku maa ngi koy sant di ko gërëm wax dëgg yàlla. forme bi sant famille yëpp di ko gërëm aussi. di euh, di gërëm aussi fi ma jógee suma dernier voyage muy waa Abidjan yi. Mhm. waa di sant kon kon David Moussou Kamso tey lii ngeen di def nii ñoom ñu ngi toog xam nga di ko bàyyi xel bu baax. kon ñooñu du ma leen baay xel parce que maa ngi liggéey ak ñoom. Mhm. Babacar il faut nga bàyyi ba bàyyi moo egg li may wax bëgg a wax quoi. <laughs> mais doo ñëw ci parce bi il faut nga parce que waa fi mu jaar ci ay xam ay préparation ak ñoom si moo bëri voilà loolu la quoi. waa waa waaw waaw bu loolu demal waaw waaw loolu weesoo nag adduna euh, dafa am ñaar yu fi nekk mooy dund ak dee yàlla dafa dogal euh, suñu benn grand frère bu ñuy wax Mbaye Thiané Tine mook sama mag bi ñooy ànd guddi ak bëccëg yàlla dafa def mu dëddu àdduna bu yàggul dara keroog bi may tourné émission bi ci corniche bi mu ngi ci suñu ginnaaw yàlla na ko yàlla yërëm grand mbay ab Abdou Got aussi maa ngi koy jaale papam aussi suma xarit la ah waaw di nuyu waa pak ba yëpp di leen ko jaal aussi voilà mu waaw waaw waaw du mën a ñu wax ci sëñ Modou Niang aussi man mii di wax teg na suma làmb contre euh, contre El Hadj moom moo tegoon làmb jooju ma koy jaal njabootam Ndiaga Niang ngumba mu ngi fi moom moo ko moom moo leen présenté woon waaw maa ngi koy jaal di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla xare àjjana xam nga di ñaanal képp ku dëddu daal di bëggee ñëpp. di jaare ñëpp dafa poids bi nga wàññi nii ba mel ni comme jour nii souplesse nga soxla pour rapidité pour mën a xeex xeex bu bëri wala. waaw mais sant yàlla xam nga làmb ju ne dafa am lu mu laaj quoi préparer combat moom kenn ku ne yaa xam ni ngay pare sa combat man xam naa nu may pare sama combat loolu la quoi. Ah. oui moo tax nga wàññeeku nii ba jeex nii. noo man xaw ma ne dama wàññi poids sax xëy na loolu yow yaa ko gis quoi. ah non boo gis nii sa forme bi. Ah, ah. mais lamb mooy laaj rek lamb ju ne ak li mu laaj rek ak na koy pare. est-ce que Bombardier oyof bëri na ak moom mbër moo xam ne boo ko xuusee doo ko yóbbu fi nga ko bëgg a yóbbu ku oyof est que dina ko mën a jàpp saax saaxee ko plaqué ko dëbb ko ay naax sol ko daan ko te loolu la gars yi di xaar bi yoon jël bu set. waaw loolu yaakaar naa dina ci am parce que ñun liggéey bi ñu liggéey. newuñu fa nag di bëre jëmale bu kenn xamul dañu ñëw daan ko ci ay minutes dem suñu yoon quoi. ak sa forme bii. ah. déglante leen yéen ñëpp ba ba tey nee nga maanaam du ngeen fa yàgg bi yoon saa su ma la déggee kon. combat bi maanaam. Tapha Tine da koo bëgg a battre ay parce que temps bi bareetul léegi boo xoolee ñaari cinq la ak benn trois ça veut dire que temps bi du yàgg kon voilà kon maanaam combat bi yow da nga bëgg cinq premières minutes yu njëkk yi nga tàqali ko ci ak Bombardier. non man laa la wax ak li ma liggéey laa wax. waaw man ak li ma liggéey. waaw deux minutes combat bi du ko am doo bëreeg moom deux minutes. incha allah foo teg loolu ci doole wala ci. incha allah incha allahu rabi. Bombardier da nga ko gën a pare. incha allahu rabi noo du benn sax du benn. yaa gën a pare. liggéey naa li may liggéey maa ngi xaar le 12 février teg incha allah. ndax yaa ko gën a pare laay laaj. xam nga kenn ku ne li nga liggéey nga gëm man li ma liggéey laa gëm. Eh, man li mu liggéey man gëmu ma man li ma liggéey laa gëm surtout. jeena bu ma ñëwee damay appliquer li ma liggéey jeena amul leen. Ah. waaye. tafaatin ba tey am na leneen lu ma seetlu ci moom ah, sa seet sorte bu mujj ak booy ñaar dama la gis ay nit yoo xam ne nii ñooñu moom ay mbër lañu woon kenn ki moom mooy mool un kenn ki moom mooy góor gi sangoor mu mel ni tafaatin tamit ay bagaasam léegi da ko gën a yaatal ba daal daa mel ni il euh, di Saloum wala Petite Côte bi dafa dugg bu baax baax ci côté Ngemb. waaw di sant aussi Pape Modou Fall aussi bu Diourbel ministre emploi Moustapha mooy ñaar ñi nga lim tey foofu li école bi moo ñu boole. góor gi Senghor ak Mawla bi ñuy entraîné fii ak yi kii ak yu kenn xamul yàgg na ay 17 ans ci ginnaaw foofu laa leen xamee ba yàlla def sutura ba léegi may ànd ak ñoom. Ah. waaye. mystique bi dañ ci dañ ciy taxaw. noo ci sama staff lañ bokk. góor gi Senghor ak Mawla ñoom ñëpp ci sama staff lañ bokk. ah waaw. waaw kon presse bi ku ci am question rek kenn ku nekk def ko rek kenn ku nekk rek def ko ñaar su rapide dina baax dafa man li nga wax sama première ba métti lool ba mujj ci loxol arbitre Bombardier ñibbi këram toogaat seetaan combat bi xam ne def na ci ay faay te faay yooyu nee na am na ci jàngat bu rëy boo xamante bi ni combat bi fa ngeen yeggoon 2012 ba nga gañe ko du ngeen fa yeggaat mu daan la avec la manière waaw euh, xam nga man nekkatuma fi di wax lamb yoo xam ne passé na yaa dix ans wala neuf ans le douze laa xool nu ma ko defalee bagage dem sama yoon ci ay minutes voilà loolu laay xaar ko mais le reste ah, c'est de ah. détail quoi ci nekk di wax sax quoi. Mm. vraiment. ok dama gis mu ne da koy daan ci ay minutes. loolu deux minutes kay la wax te kenn mësu koo jàpp daan ko ci ay minutes. képp ku koy daan da ngay naxante ak moom. façon bëre bi tafaatin bi loolu am na loo xam mënu ma ko contrôler de demal mu doon s'il vous plaît. façon bëre bi bombardier di bëri est-ce que maanaam ñëw battre ko ci deux minutes dina yomb. waaw xam nga mbër yi dañoo bëri te wuute kenn ku ne ak la ngay teg. am na ñoo xam ne tey mën nañ laa tegal loo xam ne loo mën indi rek ñu yàq ko loo mën indi rek ñu yàq ko voilà noonu la demee loolu nag ay mbir la dañ koy xam ak xam lan ngay teg tegal sa adversaire loolu lépp maa ngi ciy waxtaan ak staff bi ñoom cuun papa papa cuun hélas cuun xam nga ñoom Bada Diop ñoom Gérard ñoom ñëpp ñu ngi fi ay mbay dawaan mooy staff bopp ñu ngi ciy changé et tout jéem a chaque jour ñu ngi ciy wax quoi ardo wala dóor mu daanu man nañ ko ci xaar. lépp la mun a am lamb la bëri dóor la surtout amul leneen. ku pare na ñëw. Ablaye Gueye koy fàtte Ablaye Gueye. Gartombe waaw ci Gartombe bi. Maka nee na ndax yaa ngi ci Gartombe bi yaay génn wala dañ lay génn. ndax gar daa metti. waaw gar xam nga gar moom. <laughs> da ngay def benn cercle xam nga. waaw waaw cinq far cinq far fii noonu la demee. waa xam nga soit dama ko doon def ba ñu may woo añ sax xam nga ma ŋar ko rek. di gar. waaw di gàll kon lu ma xam ne lu ma mën la te système la aussi te xam nga moo ko bëri dañoo xawta sore waaw parfois dama koy teggi du mën a ñàkk kon Bombardier da danga koy gar noo xam nga gar moom mënta ñàkk dina hmm. ci takk dinaa ko tegal gar dinaa ko nappaaji dem su ma yoon incha allah caq bi borom nee na caq bi andi woon nga ko. yow dama tee ay micro. tegtalu la. waa lii sama bagage la rek. bagage su maam la ban micro la na ko jël.

comprendre ngeen sant waa VDN bi sama gars jaay oto yëpp jiital ci daw dafay waaw waxi booy ñaa moom wax dëgg yàlla waxutuñu ko dépassé nañu ko ci leneen la ñuy xool ko am suñu adversaire suñu adversaire non dal na ni ni ni combat boobu yàggee ah, est-ce que Bombardier genre adversaire boobu la arène nationale voilà mais mais bu ma ko confirmer woon lan laay confirmer c'est pas l'appel man maay entraîné night and day Ah. kon du ma ñëw taxaw ku mel ni ay Bombardier di ma jéem a déstabiliser ci leneen non non non lamb il faut nga dëgër bopp mën doog ci mën a nekk boo ko ba dëgërul a ci nekk. Ah. waaw mais yàlla ah. def lu am solo te yaa koy sóoraale euh, maanaam ci tax sama war a insister tamit aussi ci wax jooju est-ce que tey li ngay wax fii euh, ak ak say supporters ak journalistes yi est lu douze di ko confirmer tabaati bi. ci lamb la ñu nekk affaire yi yi moom mënu cee ñàkk loolu du dara. incha allahu rabi. Hmm. dañuy dalal suñu xelu supporter yëpp. mais man li ne man Tapha li may liggéey moom laa yóbbu ci lam ji man du ma tricé ci lamb. waaw benn rek laa koy ba waaw ah yee. jox la li ma am lépp daan la dem su ma yoon. loolu moo nekk. ok ah, sëñ bi dugalal dugalal mu gaaw. moo moo ànd xam ma euh, Tapha. Euh, alors dañu gis ci sa benn sortie. waxal rek waaw waaw dañu gis sa benn sortie. nga ni euh, mbër yi bala nga xam ne ay tapet lañ hmm. nga duggandoog ñoom ci biir géew bi lépp lu ñuy wax ci biti lañ koy waxee mais boo duggee ak ñoom ci biir géew ba jàkkaarloog ñoom nga gis ne ay tapet lañ tapet googu noonu gis nañ ni mës nga jàkkaarloo ak ki nga xam ne moom mooy Bombardier est-ce que tapet boobu gisoon nga ko ci moom waaw di di di sant aussi waa Seras ah Malon Père Diogoy Jonn maa ngi leen di sant <laughs> bu baax di sant fukki pàkk yi ak ñaar di sant Bawol yëpp ci question bi mu ne mbër yi nga duggandool ci géew. ñun la tëjal ak digg. ah yow ay ragal nga ne am na ñoom ay ragal lañ ndax boobu la ca cee bokk. non loolu moom loolu moom ko mën a siise quoi. di làmm mbër muy tiit ak yu kenn xamul loolu moom arbitre yi ñoo ko mën a siise. yow da ngaa bëreeg mbër muy am na ci lamb ji wax dëgg yàlla mais xam nga du ma cité tur kenn quoi mais am na ci lamb ji. mais est gis nga tiit ci bombardier parce que mës ngeen jàkkaarloo. non non non moom guerrier la jàmbaar. du tiit suñu grand frère la nag ñu koy nuyu ñëw xoolal teel a xool fi muy daanu ndax am na ay xeer wala déet balaa ko ci leneen a fekk. Ah, man li ma koy ah. xam na ne combat bi dafa am solo sa carrière même Bombardier aussi tamit. demal rek demal demal. mu doon te demal. Baye Fall bàyyi ñu liggéey. ok question bi ma lay laaj. combat bi dafa am dafa am solo ci sa carrière parce que bawal ñi ngi xaar roi des arènes amaguñ ko. Bombardier nekk na roi des arènes ñaari yoon. ngay bëreeg moom combat revanche te li ko gën a metti loolu la combat bi dayoo bi mu am importance bi mu am ci sa carrière est ce que yaa ngi koy bàyyi xel combat bi ak lu mën a xew muy défaite di victoire di niil ndax looloo fi am. waaw aussi di nuyu aussi suñu nijaay Mor Ngom Bawol di nuyu aussi. Euh, dafa nuyu semi yi fi nekk yi mooy semi yi waaw maa ngi leen di nuyu leen gërëm aussi comme da ngay nuyoo kay voilà di jéeglu quoi ci question bi ci question bi combat bi dayoo bi mu am ci sa carrière tante woon nga roi des arènes 2013 ñàkk ko Bombardier nekk na ko ñaari yoon nga may ko revanche bu fas yéenee fayu retraite ak moom est ce xam nga combat bi dayoo bi mu am ci yow waaw dayoo bi mu xam ak impact bi mu am ci man comprendre moo tax may liggéey liggéey boo xam ne du ma jàkkaarloog Bombardier daan ko ci ay minutes dem suma yoon. man loolu laa gëm gëmu ma ne leen. loolu nga gëm. voilà loolu la ko léegi man man moom waaw nañu ma xaar bu yàggul dara dinaa leen di titre roi de Sané. Ah mooy lan mooy l'essentiel bi. waaw gars nañ nangoo bëri ak man loolu dong laay sàkku quoi sàkku ma leneen. loolu ngay sàkku. voilà léegi léegi noo waaw balaa mobilisation bi dama ko déggoon keroog mu wax waxu top 5 mu ne moom xeexam bariwul. combat am yëpp top 5 la yu ci bari est-ce que combat bi mën nañoo xalaat jël bi am top 5.